Euh, jërë ngeen ñu ngi jaajëfal bu baax a baax seen ànd ak Dakar Animaux point com euh, amoon nañ ma xaali mu mu ak toor yu ñëwaat ak toor say technique yu yéeme tey nag beneen affaire la ma xaali indiwaat nañ waxtaan ci ci ci ci ci ci euh, ci xeetu technique boobu mu indi boo xam ne peut-être que moom fi loo ko fekk mais bëriwu Sénégalais yu koy yu koy yu koy yu koy pratiquer dinañ wax la moo tax Sénégalais yi dresseur Sénégalais yi wala boo ñi nga xam ñi ngi état bi au Sénégal duñ pratiquer technique boobu noonu muy benn euh, bi ñaaree bi nañ waxtaan ci wàllum euh, élevage muy benn sujet boo xam ne man daf ma intéressé personnellement intéressé gars yu bëri bëri maxaali ñu ngi lay ñu ngi lay nuyu bu baax di la gërëm si ci ci sa temps bi ñu joxaat ak tàngaay bi ñu la teg nii. waaw ah, bisimilah salaamaaleykum Babacar ñu ngi lay fay euh, voilà di la di kontaan encore ci opportunité encore yu ñuy yu ñuy permettre hein, pour que ñuy mën di. di wane li nga xamante ne mooy nekk di def toujours. tey tey balaa balaa ñuy avancer dafa nekk di bind commentaire yi di joxe ay numéro ak yeneen nante yoo xam ne ñuy jël jël seen numéro ñoom kenn laaj seen numéro ñu koy joxe tey bala ñuy bala ñuy commencer émission bi ma xaal da nga jox gars yi seen boo xam ne peut que am nga xam ne xëy ñu ngi à l'extérieur bëgg a connecté ak yow xëy pour ay ndimbal yoo xam ne soxla ci seen wàllum xaj wala ñu nekk

ba euh, ba bah, du du du du race bi. Hmm. du race bi hein. euh, malinois la comme comme comme comme malinois yep voilà mais c'est-à-dire euh, kii bi sport sport boobu bi muy def. Hmm. voilà mo mo mo moy doxee nonou quoi mooy doxee noonu. donc ba enfin qui la ñuy wax RCI am nañu am ñuy wax ki IPO. Hmm. am ñu ba avant loolu lañ ñu doon wax mais légui après ñuy wax IGP. d'accord IGP quoi wala Schutzung Schutzung mo bi allemand la. Schutzung voilà donc chute comme pour désigner chien de sport chien de protection pardon. Mhm. voilà en allemand allemand euh, ñoom loolu lañ doon wax ko. Mhm. cest à pour désigner chien de protection. Mhm. mais après affaire bi dafa ben beneen beneen tournure bu mu am. parce que d'habitude euh, police wala armée ñoom ñoo doon faral di di évoluer le seen xaj.

genn genn du ko quoi du ko du ko non non du ko wàccee du ko toujours genn daf ko yegël ci kaw di wane toute sa joie ci exécution ou exercice bu muy def. muy marcher au pied bi. d'accord comprendre donc ci marcher au pied bi euh, ñom non lañuy def enfin marcher au pied bi aussi ba il faut que gars ñu ñu ñu xam ben affaire nekul nekul hasard xaj bi di wax di dox au pied. Hmm. non non nekul nekul nekul hasard c'est-à-dire te façon bi boko xolé ak façon chien de ring comme ring français di une très très grande différence parce que si vous faites par exemple ring kese la xaj il pas besoin pas forcément xaj il faut war Bob dox bopp bi ci kaw genn bi ci kaw correctement au pied du maître sans mu dépasser maître sans aussi tam mu traîner derrière di dox au même rythme que que maître par contre fi et et et et bon à savoir aussi que, ne que ben moment on a euh, euh, depuis ñu que ñuy wax affaireu chien citadin nga xamné ak déplacement euh, kii population yi c'était une obligation pour que xaj bi di dox di dox correctement motax ñuy wax ñuy wax ki la bonne tenue en ville d'accord la bonne tenue en ville pour pour wax xamal gaay ni ne bi dafa war di dox correctement mais bu fekkente ne tey par exemple da nga ñëw ci Sorkane bi ni mhm. da ngay gis ne maître le maître il se met dans la peau du chien. Mhm. c'est comme si mon dafa am lu mu war compenser lu mu compenser. Mhm. ce qui fait que mon buy bëgg ak type de pas yu def. Mhm. da ngay xaj exactement loolu lay dégager. même même harmonie c'est-à-dire même même euh, kii bi même li animé maître bi. mooy animé xaj bi xaj bi day content, il est joyeux le maître aussi tamit il est joyeux. d'accord c'est vrai que li nga wax ni moom c'est tellement clair c'est technique mais c'est tellement clair mais sans problème mooy xaj bi euh, naka nga ko mën a def ba ne ko yow del xool ci kaw sa génn gi dee ko yëkkati man sans problème foofu la nekk quoi. waaw loolu ba amul dara lu ci extraordinaire ah. parce que parce que tout est fait à partir de xaj bi da ngay fexe amal benn motivation ci liggéey bi mm-hmm. donc une fois que nga nga am li motivé waaw am na ci yoo xam xam naa ne moom affaire yi du du du. waaw am na yoo xam ne kenn ko mën a expliquer. waaw maanaam sama sama bopp ne ñoom mënuñu ko xam quoi mën naa wax ne xaj bi daal liggéey naa ko bopp bi yëg ci kaw. non non mën naa ko expliquer sax. mën naa ko expliquer mais mais mais par exemple Sénégal c'est-à-dire man je vais pas dire que toll naa fi kenn fenn mais c'est que il faut que il faut que ñun ñun Sénégalais yi. surtout ñun ñi nga xam dañuy dañuy liggéey ci xaj yi. ñu xam ne ñun dara waruñoo të ci dara waruñu see të. il ne faut pas que toujours ñuy limité wu ci programme chien de garde kese. attaque mordant mat mat mat. attaque euh, matal bay kii non. Euh. am na ci leneen c'est-à-dire les chiens ils sont là pour pour travailler. Mm-hmm. te lépp loo gis sa moroomu nit mu koy pratiquer. Mm-hmm. yow booy évoluer dans le même domaine. da nga ko war da nga ko war pratiquer léegi ni nga koy pratiquer compliqué wul et liral xaj bi mhm. liral xaj bi lan ak lan moo tax mu def nii mhm. man lii dinaa ko def c'est-à-dire yow noonu ngay forger woo yow noonu noonu ngay ngay parce que parce que lii nii jànguma ko mhm. barke Sidi Ibrahima Fall jànguma ko kenn kenn gars ne jàngul tarim on dana ah. écré de kenn jàngaloo loo ko nga bëgg a wax ah, loolu nag loolu nag moo si nekk ah. parce que parce que li tax ma wax loolu c'est parce que bu fekkee da ngay évoluer da ngay liggéey ci xaj surtout si Sénégal mu leer la ni mu leer la ni majeure partie bi ci xat yi nga xam ne dañu lay woo dressage xat yooyu ce sont pas des chiens des chiens sélectionnés c'est-à-dire dresseur Sénégal ay jàmbaar lañ parce que xat yi ñu leen di jox bu doon boo ko boo ko bu doon Europe ñu catégoriser ko ñu ne c'est un chien non dressable léegi fii Sénégal mbay Ndiaye produire benn xaj jox ko benn dresseur te dresseur bi mom ba bien sûr da ngay jang dressage man jang na dressage. mais dama dama bëgg par rapport ak exercice bima don bima don pratiquer ni parce que duma né Sénégal amu fi. mais mais gars yi duñ ko def gisuma ko. comprendre nga maintenant le fait que ñu jox la xaj bobu tam mu leer la ni dafa war aboutir au même résultat que que xaju boro que que boom xaj bi voisin par exemple. voisin mu ngi obéir dresseuram à la lettre. yow nga ñëw un chien qui est venu de nulle part ñu jox la ko nga war ko travailler yow dis-toi que xadju war nako xam par tous les moyens c'est-à-dire yow yay utiliser su boobaa sa xel nga ni xadju bi dina dina travailler dina def li fofu non yow yaa ngi defar sa bopp yaa ngi yow yaa ngi yaa ngi forger wu yaa may sa bopp. yaa ngi jàngal sa bopp yaa ngi jàngal sa bopp. te loolu non di nga di nga parvenir ndax difficulté yoy noonu yëpp nga parvenir à surmonter di nga parvenir façon xaj buñ la jox dang nga koy liggéey. do am problème bi. mais su fekkee da nga naan non par exemple parce que am na fi tamit Sénégal nit nee fi client changer sa xat bi parce que xat bi baxul deug la lolou leg leg day am. mais man ba ci télévision lay waxee. sama client ñom ñep ñu ngi may dégg. amul client bu mu mus rejeter sa xat xat bu la jox nga liggéey ko. amul client bu mu mus rejeter sa xat maintenant amna na nak lu si nek moy ne ko xat da fay limité wu. bo le boo travaillé bi travailler bi ñom ñaar mën nañ bok li ñuy def mais façon biñ ñu koy defee xaj bale mën na koy def di crisper yaramam parce que parce que parewul psychologiquement mentalement il a des problèmes ou bien physiquement mon na am ay ay problèmes yu koy empêcher par exemple mu par exemple berger allemand mun na am problème dysplasie pas forcément dysplasie hanche quoi pas forcément tout le temps mu mën mu mën di toog comme comme xaj normal bu dara jotul xaj boobu soo ko soo ko su fekkoon da nga ko doon travailler mu la doon jox yow mi koy travailler xam nga ne xaj bi aptul trop trop donc su koy def comparé à un malinois ou un berger allemand travail bu ñu importé Indique.

ci sa coobare bopp wala xaj bi daf la neex. Hmm. waaw pas forcément nga am ci lu nga ci bëgg. te tamit du ñëpp ñoo am xolu jënd xaj ñoo génnaat ci ci saasi. mën nga ko jënd deux jours xaj bi familiarisé wu ak yow nga nga bëgg ko teg ko foo xamante ne. génne ko dalay jafe. jaay nañ fi ay nit ay lawbe. Hmm. jaay nañ fi ay nit ay lawbe. man mii man mii sama jaay lawbe xam naa ne Bamba soo yëgoon moom doo ma dóor sa lawbe boobu noonu. <laughs> daa ma ne ma di ko wax ji bàmb yaa ma dóoroon ci lawbe bi. <laughs> ah waaw loolu moo si nekk te pourtant lawbe bi soo moytul da nga koy téye sa kër di ko toppatoo normal. Mm. te pourtant xaj la comme yeneen xaj. Mm. dressable na comme yeneen xaj yi mais problème bi mooy yow chien de race nga bëggoon comprendre nga. Mm. loolu mos nekk te pourtant doo ko mën a doo ko mujjee génne finalement da nga koy da ngay da ngay obligé kii ko. garder ko d'accord léegi ci côté côté dugg naa si benn sujet léegi rek euh, muy côté euh, li xew léegi ah léegi gars yi dafa mel ni Sénégal léegi moom dëkku agresseur la quoi y a plus d' agresseur que ay nit ñu nit ñu booy xool à travers les réseaux sociaux da nga yaakaar loolu moo xew Sénégal quoi léegi yéen seen rôle lan la si dans tout ça. bon suñu rôle. c'est-à-dire que yéen xam ne ñu si wàllu milieu canin. si milieu canin waaw am nañ ci rôle bu bu mucc ay mais joxuñu ñu trop joxuñu trop mam suñu cër joxuñu ñu ko ci trop waaw parce que par exemple yow sa xaj su maté nit so maytul di nga am problème facilement xaj yor xaj déjà c'est pas une mince affaire bu fekkonte ne état bi dafa daf ñoo permettre ñu am accès ci alimentation xaj ci vaccin ak ci yooyu nonu yépp ba paré ba paré lool nak pour mu am moy jox gëdd xaj Sénégal ba paré xaj dafee tum ranke bu on a am considération c'est-à-dire rôle on va se sentir beaucoup plus en sécurité di nga mun autant de chiens le monde parce que parce que gérer ce serait pas une euh, affaire bu compliqué mais néanmoins ñun am nous nga sécurité dañ koy jël man sécurité comprendre nga. Mhm. mais waaw loolu la rek ah. ñu fay nekk di garder quoi nga jox ko en location. ñu fay waaw de passage maa ngi nuyu Gabar kooku aussi ci gars yi ma yoo xaj mhm. moom dama moom dama cee am mbégte mu rëy ci moom mhm. ndax toppatoo bi man ni may faral di demee di topp yeneen xaj di leen xool moom fekk ko ci barki maam Cheikh Ibrahima ndax dafa mel ni moom moom ko gën a bëgg ndax toppatoo bi lekk bu baax set lépp duma xaar ci dara. donc kooku tamit dama koy ci dama ko ciy remercier mais instant bi c'est le moment où jamais nit yi xam ne xaj dafa indispensable ci sécurité personne yi ak ak ak seen i bien mhm. fi mu toll nii mënu fi ñàkk mhm. ba du ma wax je vais pas dire que gardien yi amuñu njëriñ mhm. mais dañuy nelaw mais gardien mom moom nit la rek boo génnee jaasi man ma ma su ma doon gardien boo génnee jaasi ma lay bàyyi affaire nga dem ah fa nekk di teg sama bakkan bi noonu la demee te te te dama fiy jaaree sànni xeeru benn gain ngañ jóob ngañ parce que moom ay xàccam man maa leen doon travail mhm. te moom xàcc bi ma leen bi ma leen travail mhm. après après dafa ne non ma xale damay dàq gardien ma ne ko non boo dàqee gardien xaj du ma leen àggali <laughs> xam naa ne du ma dégg ngañ jóob yow laay xal maintenant dafa obligé après gardien dafa dem këram te pourtant xàcc fi mu soxlaatul foofu kenn xaj yi ampar man mi man mi sax fi ndoni pour ma dugg fa. Hmm. léegi ba benen affaire la damay ñew xam nga gars yi dugg tak xaj yi ma soog dugg foofu kon kon kon tey jot na ñi nga xam ño ño choisir li xam modi modi modi métier gardiennage ñom jot na ñu joko ak yéen dem jang lan moy xaj touti pour mën ko yor au cas où sen seen propriétaire buñu buñu sox buñu amé soxla ci xaj bi. waaw ba sen liggéey dafa melni xawna xaw na de. lu wax xawna bokk ta tam dafa wara a hmm. parce que le métier euh, bi bu xaj ni hmm. c'est-à-dire lu mu mën a créer ci ay emploi kenn xamul nan la toll mm. mais c'est que Sénégal dañoo ragal mm. ça il faut que il faut que ragal bi ñu dindi ko ñu tegi ko nële il faut tamit ñu ñu bàyyi rëy bi mm. waaw il faut tamit ñu bàyyi tam soxor parce que am na fi tamit quoi am na fi c'est-à-dire bu ñu gisee kenn ku nga xam ne mu ngi évoluer dans le dans le chien ou bien mu muy prétendre bëgg ci nekk quelque chose mais xoolal nañ ko épauler gëm fi noonu boo fi boo njotee ne xam am nga xam-xam bu ndaw nga ngay nga ne doo ko partagé ku la gën a xam mu ngi def mu xam na am na ku la gën a xam fukki junni yoon da nga xool tubaab bi benn xaj kese bu ñu bu ñuy préparé ñaata nit ñooy tourner autour d'un seul chien pour préparer benn chien ñaata nit léegi sénégalais fii fii nii ngay ñëw kenn di liggéey tey di di di di di moom jot na sax moom xam na far du xalaatul la partage ak deme demee noonu wala mu ne mën naa tayoo li nga mën kenn du ko gis nañoo xam ne dëgg cest à dañuy nax suñu bopp dañuy à chaque fois ma am opportunité pour wax ko dina xamal ne gars yi ñu ngi nax suñu bopp nañ génn ñu liggéey nañuy di entraîner yi. comprendre parce que tubaab yi nga xam ne tey ñoom liggéey yi ñoom gënuñu ci ci bay. lu lu xel def ñun ñii am nañ xel région bi par exemple yeneen yi. Mhm. nga mais sénégal xam nga lan lañuy def ko critiquer kese dañuy toog si seen clavier critiquer kii ni mu ko defee baaxul kii ni mu ko defee baax kii ni mu ko defee baaxul yow defal jeex na amul amul leneen defal defal pour wan ko ni pour wan ah, ko ni nii la yoon bi yoon baa ngi nii yoon baa ngi nii nii lañ koy defee facilement mu kii mais da nga bëgg a toog si groupe whatsapp rek après nekk nah, fi di ratati ratati wax tànkal nit yi gauche droite gauche droite non nañ bàyyi yooyu noonu quoi ñu avancé fii ay golow neew ñu fi ay hmm. nit yu responsable ñoo fi nekk hmm. man am bac plus 5 paa la

amul amul bax noppi dégg. voilà c' est ça donc loolu noonu par rapport moo. saa fi nekk loo wax ñu du noonu te duñ teg dara. duñ teg dara. <laughs> moo tax dew ma fenn. waaw doo doo dem fenn doo dem fenn man aussi c' est la chose man dew ma fenn man su ma dóorijee su ma wàccee maa ngi sama kër naan sama café tuwa jël samay sujet ma entraîné leen jeex na. parce que tey di nga di nga am yéene partagé ak nit benn affaire bu ndaw. Hmm. suba mu ne non pourtant man maa ko kiiwal lii maa ko man maa ko wan lii nii. gis nga te pourtant yooyu noonu amul sens parce que mën ngaa def pour nit sax ngir jëmi yàlla nga am ci tuyaaba. comprendre nga suba affaire yi day dox yow da ngay am sañ-sañu sañ bàyyi sañ njaboot ñu du ñu dund ñu def métier bi. Mhm. mais fii nii ñu bëri tey ci milieu bi bu ñu sañoon boo lëggee seen doom du liggéey ci sujet yi si xaj. ah non parce que dund nañ ci gis nañ ci lu nekk. Ah. loolu moo si nekk quoi. d' accord d' accord Makhali euh, Sénégal hot dog euh, breeding yow yaay yow yaay président bi. côté élevage bi fan ngeen ci fan ngeen ci toll dèjà yow yow wax nga ko léegi un jeune avec un bac plus 5 bokk sama genre yi nga xamante ni classe gor yi lañu ba lañu lañu lañu lañu lañu bàyyi CM2 <laughs> def certificat ñaari doon aw ma ko en transition ñu dàq ma donc maa ngi yow wuute nañu ëpp nga ma xam-xam fukki maami junni yoon mais tey pourquoi tey nga bàyyi yooyu yëpp euh, consacré wu tey si ci ci élevage xaj. côté dressage bi moom du ñu si waxaat côté élevage bi surtout. ba parce que man man d' abord je suis passionné du chien xet laa bëgg am na ay maison de transit yu ma jaar. MTTS. Mhm. MLT. Mhm. Hein, jaaroon naa ci C2P. Mhm. comprendre ngeen mais ñoom ba ma fay nekk sax ñoom ils étaient conscients te pourtant man transit normal damay damay dédouané oto normal dédouané naa port Moule 1 génne naa oto tout ça. comprendre nga mais c' est que euh, sama passion mooy donc à un moment donné nag da ngay xam ba affaire mom moom da nga am obligation def choix mono, mono, mono, munoo kii lépp defal ce choix selon li nga xam ne yow loolu nga bëgg même bu fekkente ne doo ci am la le leneen mën am parce que tam lépp looy def te amul passion rek boum y nga jël ko nga tegee ko parce que da ngay perdre temps doo ci am résultat quoi parce que da nga koy def soo ko sentiree nga def soo ko par contre li nga qui da ci am passion ba espoir bi foofu lay njëkk foofu lay ëppee foofu lay gën a foofu lay gën a amee donc loolu moo tax ma ma ma bàyyi kii bi. voilà bien que su ma mu may jariñ. Hmm, parce que am possibilité euh, importer xaj wala dara ki nga xam mom, moom damay bëgg moom mu defal ma man so moytuwul sax ci procédure douanière man mun naa ko si jàppale. Hmm. donc voilà loolu la quoi. parce que commencé a été au début avec les parents dina compliqué ah. jël sa ko gi gi ne demal defi transit demal defi nangam. mu xëy xëy xëy ne la élevage xaj laay def ak Sénégal fi fu mu toll nga xamante ni am fi xaj sa biir kër rek problème la yow nga ne non non man li ci xaj laay liggéey. waaw ba ba compliqué compliqué gisuma trop complication quoi parce que dañoo man dama bokk ci famille bi nga xamante ne dañu yar ci ci ci ci ngor ci diine dañu see yar soxlawuñu ngay am lu extraordinaire mooy l'essentiel mooy ni que na nga bëgg liggéey. sa diine nang koy pratiquer normal tant yangi yaa amu tant que amoo kiiwoo ci lolu ba pare ngay dund dundinu baña déshonoré. baña a déshonoré bañ dugg ci lo xamné famille bi après ci rouss man sama famille lolu la mais sinon amuñu problème pour orienter nit. ke li ni nga wara ki ak demee noonu non non parce que xamnañ né luñ la yéré bo ci duggé ak lo mëna dugg ba pardon ak lo mëna dugg di nga xam yow la ci duggal do ci dugg pour pour ak yu démé non d'accord te teen moom ku ci yàgg baag dala ciy fekk. par mhm. moo tax ci biir fa au niveau de la famille moom amul woon problème quoi pour que nga intégré. ba non non ba non non non non non non non mosul am problème boobu. waaw maire moom su ko soxna ñoom ñoom seen yoon ca xaj yi ñoom. waaw <laughs> waaw maire maire bi dama koy ñaanal sama borom saxal ko fi barke maam iya, Cheikh Ibrahima Fall. waaw iya, ku ku baax ndax man bu ma néegu la def nit dara. Mhm. lu ko metti mhm. ak ma sekk ak nit sax di xool ndax kooku mer na mam déet. yàlla ak jëmmam. barki maam Cheikh Fall dama koy ñaanal mu yàgg fi sax fi wér ak mboolem yaay ñëpp sama borom wéral leen ndax ñoom ñooy defar doom hmm. ñoom ñoom ñooy am lu ñu la ba yow ngay am looy jomb ak di hmm. ak di sóoraale hmm. ba bëgg sa dara te ñoom lu ñu am mën koo si mën koo jax mën koo séddoog yow donc sama yaay dama koy ñaanal ak di ñaanal yaay yëpp sama borom saxal leen fi wéral leen ah, barki maam Cheikh ñu dund ba ñu leen di weer ak di leen weri loolu Sidi Ibrahima Fall

tout am tuuti aperçu ci si devenir ci ndax dinañ capable def lii wala lii loolu loolu koy parce que damay travailler femelle yi man Je yi may yor dama leen dama leen di travailler du ne rek mal non non parce que boo liggéey mal kese nga accouplé ko ak beneen femelle tey boo taxee nga ne sama mal dañuy parce que c'est pap nii la mel yow am nga dëgg nag parce que sacrifié wu nga pour que sama liggéey ñu xam li mu capable def mais ki nga xam tay présent dafa yor femelle mu travaille femelle bi gis mal bi li liggéey femelle bi di ah borom mal bi du ko bañal. que femelle yi ils sont bien. te lolu d'habitude ci lolu lay sikundiku pour porte suma défé porte porté damay xam chez yi nan lañuy mel. mais amna ci nga xam après ba lañuy dem. dama leen dama leen di travailler di di di di leen travailler di di ki ci suba moo ci mujj par exemple laata may génn man non lay def dama dama show yi bu ma ay show dama suba gi dama leen di travailler pare. Hmm. ma so genn dem di di amne boko jaay nit lu mu de de de dina am dara lu fa nek quoi. wa boko ko jaay lu mu new new new lu dresseur tayal tayal tayal dina fekk ci xàcc lo xamne dina ko jappale ci liggéeyam. d'accord waaw. est-ce que mës na la arriver nga jaay nit ben show. beneen dresseur yor ko ñëw ne la non xaj bi mënuma ko liggéey parce que dafa taayeel wala xaj bi sawarul. non loolu moom dalaguma. dalaguma waaw ci ci télé lay wax. Mhm. loolu loolu dalaguma. Mhm. loolu moom wax dëgg yàlla dalaguma. Mhm. non non écoulement bi est ce que est ce que mi ngi jàll baax a baax a baax. waaw non écoulement bi moom alhamdulilah rabbil alamin gars yi moto yi cher cher de soo di gisee ñu taxaw jàkkaarloo nii sax parce que moto bi la xool balaa gars yi di ko <laughs> moo tax ñu taxaw war nga ji ginnaaw quoi jàkkaarloo nii <laughs> gars moto yu cher cher cher ay oto la ñu ay oto yoo xam ko résumé en moto ba <laughs> non moto bi benn client moom ko may benn client ah, na la oto bu ñu def moto <laughs> boo eggee boo eggee Gambie gars yi oto yi moto la ñuy wax quoi mais Sénégal gi la ñu war a wax moto yi oto yi ñu wax moto <laughs> parce que lii oto la. <laughs> non non benn benn client moo bi. Hmm. amuñu ci problème parce que parce que il arrive par exemple nga ci porté hmm. nga téye benn show war liggéey sax benn benn client ñëw ne man moom moom la bëgg nga obligé xoolal nga obligé jox ko donc loolu moom ñu ngi koy dund quoi tout simplement parce que. par exemple damay nuyu tam ñi ci ci région par exemple Mali genre affaire fay jaay euh, euh, dara dara dara. aussi ak ak ay Gambie genre parce que parce que ñu ngi def effort quoi ñu mais parfois écoulement problème pour écouler. parce que tant que am produit bu clients yi ñom dofatuñu berner ni facilement quoi. Mhm. da ci ay mhm. nga après si nous na fait que, ñu fekk femelle bi taxaw mhm. yi di gauche droite. mais sen xel dina a quoi dina parce que di bouger. war di sawar dafa dafa xaj bu sawar la waru xaj bu day place nga ñëw choisir non. mais ça ne veut pas dire que ça ne veut pas dire que xaj aussi baaxul mun na stressé wu mun na stressé wu wala dara mun na am problème sociabilisation aussi mu mel noonu mais toujours et que éleveur parfois bu fekkee am na possibilité muy génne ay xacam parce que surtout booy def élevage te say xaj environnement bi ngay éleve ci élevage bi kese la ñuy la yem loolu loolu aussi wóorul quoi loolu day man parce que man maa ngi dressé ay xaj ci nga xam te ne donc ba problème yooyu noonu moom laa ci kii quoi xaj yooyu dañuy dañuy jël seen genn tout le temps di di ruux xam nga da ngay obligé da danga ci nga ciy coono quoi da ngay da ngay da nga ciy sonn quoi da nga ciy sonn parce que dressage méttiwul quoi parfois yooyu noonu yëpp mën nga mën nga mënal ci bañ a fekk quoi. d'accord d'accord fit bi xaj yi euh, parce que gis nañu xaj bi ñu yor léegi nu mu tudd. Euh, gis gis gis nañu ok euh, nga sànni benn affaire ci biir ndox mi au fond au fond di lac mais hésité wul dafa dem directement et je pense que bii mooy première fois mu dugg ci ci biir ci biir ndox mi léegi fit boobu lan la ci xaj bi la wala wala wala lan la exactement. waa ci xaj bi la. ci xaj la équilibre mhm. psychologiquement équilibré mhm. amul trop ay blocage day day day free ndox mu dem sawara mu dem mu dem te mhm. xamul xamul xamul musu mus ci dem xamul du du quoi directement dem dem dem dem dem directement parce que il est il il est emporté par plaisir bi muy am ci ci fowukaayam fowukaay bi ce qui fait que bi foo ko mën a yóbbu moom gisul lenn lu koy bloqué pour mu war a dem jël ji fowukaayam. d'accord gis ko day dem facilement. de là aussi mën nga ko def lu la neex. waaye à partir de là mën nga ko def léegi loolu nag moo metti nag travail boobu noonu. Hmm. moo metti nan nga mën a def ba xaj bi mu mu nekk ku fanatique. Hmm. bu doon nit tey ak sëriñam nga ne tey dafa fanatique. Hmm. c'est exactement ça ci xaj bi ak ak balam. dafa fanatique du ci am sago. d'accord d'accord. pris prix prix prix xaj bi dafa surtout comme marinois yi gars yi ne Sénégal autobréding ñoo gën a baax xaj waaye ñoo gën a cher xaj gars yi loolu la ñuy jooy quoi est-ce que benn instant bi doon si jéem def benn jàppandal dafa gis koo xamante ni pas bëgg na xaj bi mais war na am xaj bi c'est-à-dire que dëkk na fu xaw a isolé tuuti kooku war na war ngeen dawal benn yërmande tuuti quoi ci biir gën si dolli boobu. waaw non xam nga xam nga tey sujet yi mën nga leen jaay ay ay ay ay prix yu xaw a yu tane hmm. comprendre nga dafay am. mais man man am na ñoo xam ne par exemple parfois. ma jël xaj may leen ko sax. moo muy gënal sax ma ma nga jaay leen. nga jaay nga jaay leen parce que moom xam na xam na li si nekk. nit par exemple dina la dina la dina la dina la dina ñëw di la solliciter tam ci mal. dama koy souligner. nga refuser ko parce que yow xam nga da ngay travailler ci ci mal bi. mu ne mal bataar la. <laughs> yooyu noonu yooyu hmm. genre affaire parce que parce que business bi. ni mu ni ñuy songee ci biir liggéey bi parfois boo amul retoni rek doo liggéey c'est-à-dire waxuma la ay produit xaj mais c'est que c'est que doo liggéey parce que loolu loolu daf loolu daf ciy nekk euh, yor ay show aussi nekk lu nga xam ne dafa yomb non non yombul parce que boo yow boo produire boo laata ngay produire rek ngay préparer femelle yi nga war a préparer seen i ay accouplement da ngay da ngay déparasiter bien avant sax seen i chaleur parfois di ñëw accouplement bi jot nga coupler mu dem ba ki amna fenn fu gestation bu bu confirmé nga war di jël di jël ay vitamines ay calcium yooyu noonu pour renforcer femelle bi xam yooyu noonu yëpp tey boo ko defee bi ñew judd am ben yenn ben nombre de jours bu muy am hein surtout après mu nga mu ko war a commencer di lek quoi nga war di di jël croquette di xoj croquette di jox ñu lek xam te croquette dafa cher ben sac trente francs mmh. comprendre ngeen xam nga loolu dafa dafa cher. léegi nga war a jënd croquette. war di déparé jité mais papa crise moy jaay ay 30000 dég amna ñu jaay ay 27000 papa papa yow tamit 30.000, amna ku jaay 27000 na naa sen marché de wañu len wañu len 3000 non ça dépend parce que parce que niñ koy amé aussi. waaw ah. qualité bi aussi waaw qualité bi aussi. Hmm. ñun ñëpp bokkuñu ñu niñ ko niñ koy amé qualité qualité euh, ki bi qualité croquette bi aussi daf ci am solo. Hmm. wa daf ci am croquette yëpp bokku ñu yam croquette yëpp bokkuñu yem. am na croquette yu jar ba 40000 ba 45000 te man damay préféré croquette bii di jar 30 mille parce que 30 pour protéine nga jox ko say chio chio yi toll nu leen neex wér. moo gën croquette bu nga xam te ne boo ko dafay cher. boo ko joxee sax 40 mille et quelque euh, wala 40 et quelque mille. nga jox ko sa sa nga jox xaj bi libre mu cabine 2 kilos loolu c'est pas intéressant xaj bi dara desul ci moom. amul amul sens. d'accord amul sens donc loolu tamit moom moo si nekk quoi. léegi nag loolu imagine tey effort yooyu noonu yëpp ngay jëm kii te parfois ñun dañ koy def avec les moyens du bord. Mhm. ñun dañ koy def avec les moyens du bord c'est-à-dire kenn épaulé wuñu si kenn épaulé wuñu mhm. donc loolu après nga kii ci war a produire war a nga li nga war a écologie yi ngay nekk di ko wanteer vraiment loolu du yomb mënul yomb quoi mënul yomb quoi ah, waxaale ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal bu baax est-ce que mën nga joxaat gars seen numéro man gars yi damuy commentaire euh, wax naa ko sànq si au de l'émission dañuy bind naan numéro est-ce que comment je peux avoir votre numéro wala man ñi may envoyé message directement naa ma salu yu nekk émission bu ñu ko jaarale léegi gars yi bind naa man damaa bëgg dressage man du dresseur dresseur baa ngi nii yaakaar naa dégg ngeen olof <laughs> léegi da leen jox numéro jël ko directement comme ça wala nga ma mais ku bëgg dressage wala nga bëgg xaj nga woo ma xaalis numéro bi la leen di jox xam naa xam naa sama internet yi dañoo bëri ay pël <laughs> ay pël dañoo mën a jaxase numéro waaw <laughs> numéro bi la 77 715. 38 Maxaale ñu lay ñu lay jaajëfal bu baax baax di la remercier man maa leen remercier yéen waa Dakar ak moom. baaxul jërëjëf jërëjëf.